Mboro et environ déglu leen lu bees limoy lu bees li est ici à Mboro Boleti ci fay fonctionnel de 7 h du matin à 0 heure Kaja da fa ak menu bu divers menu bu varié ak menu bo xamante ni daf koy mengalé ak sen bëgg-bëgg ak sen goût yeen wa Mboro ak wër Kaja Mashallah ko tamo da ngeen fa fekk lépp luy shawarma pizza hamburger plateau salé et sucré bu ya ya xam bu xonko wala bu choisir Kadia machallah c'est aussi des plats comme c'est bon mafé riz cantonné mboroxe yassa. dama ni akadia machallah yene choisir. il choisir yamuñu fofu de ndax kadia machallah dafa sobu bu événementiel lepp luy mariage anniversaire séminaire wala baptême dama ni faites confiance à l'expertise et l'expérience de votre préféré kadia machallah kadia machallah adresse bi fitimboro ngi ci am service traiteur bu xarañ set wetch kadia passez vite vos commandes sur len jare ci numéro jox 77 441 09. 226, wala ci 76 829 85 00 Kadia machallah allah gën a yay set di jox ay Service yu amul fen. ci na mu Kadia le choix parfait pour satisfaire vos goûts. Voilà gars yi bonsoir bienvenue tout le monde sur Vital TV ak seen émission Jazz Hip Hop tey nag dalal naa benn gan boo xamante ne yaakaar ni kanam gi am nañu ko xàmmee am na ñoo xamante ne ko voilà man mi amoon naa envie pour bu ñëw fii nii suñu émission Jazz Hip ba tey jii ñu dalal ko voilà muy imbi Diaz imbi Diaz ñu ngi lay bëggee. jee Dima ma lay bëgg lu bari bari salaamaaleykum salaamaaleykum waa Vital TV. Mhm. salaamaaleykum Mboro Mb Saïd maa ngi di bëgg lu bëree bari. waaw xam nga di jiital nuyoo bi sama gars yi sama staff waa live goes xam nga di leen saluer de passage mooy loolu loolu dima voilà gars yi ñoo ko gisandoo quoi à chaque fois dañuy am envie di invité artistes yoo xamante ñoo ngi ci biir dëkk bi di def ay affaire yu nice ñu invité ko quoi bon am na ñaari affaire yoo tax am na ñaari affaire tax ñu invité ko mais première partie bi bon dañuy wax ci carrière xam nga ku bëggoon xam Mb Diaz tey fan koy xame voilà léegi Mb Diaz tey ñu bëggoon xam tey ku ko xam bëgg ko xam Mb Diaz fan lay xamee Mb Mb waaw Mb moom je peux dire que nii l'enfant chéri de Mboro la quoi. mooy la l'enfant chéri bu Mboro am na ba pare wala na nga bëgg a nangawaat. non même pas sax. Ah, bëgg ma ko nangu sax mais ma ah. nee l'enfant chéri de Mboro dama dama laal fu bari quoi. Ah, maanaam xam nga dama nekk ñaay-ñaay si côté maire. Mhm. bien vrai que juddoo ma Mb mhm. mais presque bi ma amee sept ans. Mhm. lépp lu ma xam sama laay fi amee sama maam tamit bokk si ñi nga xamante ne si mooy les pères fondateurs de Mbissaye. macha kon kooku noonu l'enfant chéri de kenn gënu ko see yey quoi. Hmm. la demee nag. ok ok waaw. Mbissaye Mbi Dia daal waaw Mbi moom. mooy Mboro bi quoi mooy Mboro Ndiaye. ok léegi waaw moom. Uh-huh. Dia moom xam na ni si musique lay wax. Dia dafa ñaari façon n'est-ce pas. Hmm. Dia bi ñuy dàkkantelee tur ak Dia musique quoi. moom à vrai dire sama neem Mamadou la quoi Mamadou Ndoye xam nga mais mais may aussi papa parce que sama grand père lañ ma tuddee léegi papa boobu nag moo poussé gars parce que neem bi jugal si man quoi si samay gars yi xam nga sama waa tim di saluer de passage lil fa Chakour xam nga jàmbaar jooju nga xam ni foo geesu gis mbi saayit mbi jaas mu si wetam mooy loolu. kon jazz bi da nga koy improviser. nii rek mais da nga koo jël daal. te mais jazz daal amul lenn loo xam ni. Mhm. mi ngi koy signifier ci ci yow. non si jazz bi musique bi may def lay signifier si man. xam nga mooy la musique jazz bokk na ci li nga xamante ne si dama ko dund. Mhm. waaw ba pare avant may dugg si biir hip hop daal voilà. mi ngi naan léegi ñu bëggoon xam influence sa début de carrière quoi tey lan moo lay influencé ba nga dugg ci rap. waaw man moom sama rab moom mën naa ni ci samay grand frère la jógee. waaw samay grand frère ñoo xamante ne si depuis booy laa yaa nga gis ñuy def genre yu mel noonu di yëngu si hip hop ma yaru seen biir xam nga di ànd ak ñoom fu ne ñu siy dugg influence boobu noonu moo dem ba poussé moom ma dugg ci game parce que dama yàgg si musique bien vrai que doxee ma ko woon mais maa ngi ko doon dund quoi ak samay grand xam nga loolu moom ma influence ba tax ma dugg si hip hop waaw. léegi tey tey jii bëgg nañu bëgg nañoo xam ban année nga dugg ci ci rab bi. waaw hip hop maa ngi tàmbalee maa ngi tàmbalee rab ay 2018 ah. 2018 2018 laa commencé rab ba ay 2019. Mm-hmm. ci laa def sound boobu maa ngi def crew ak Doki la di ko saluer de passage mm-hmm. sama joo boobu noonu. ci lañ defoon benn crew quoi tuddee woon ko GMD. ok ok mooy loolu foofu début boobu laa commencé. Mm-hmm. hip hop waaw. ok 2018 2019 yow après yow am nga sa benn son boo xamante ne yow sa premier son la boo xam ne yow kese yaa ko def. waaw waaw. ban année ko def amoon na quoi boobu ñu maa ngi ko def si fin 2019 bi. fin 2019 fin 2019 bi laa ko def waaw. ok son boobu noonu. ok maa ngi ko defoon fii Mbidia defaat mhm. teew quoi la son bi tuddoon. ok maa ngi ko prisé woon ci Ben ins. benn ins oh, record fii Mboro xam. benn ins <laughs> Non la demee après waaw mhm. par la suite si le kuréel bi tas. xam nga teewul ñu ngi koy continuer di ko dund ensemble. ok leer xam nga par la suite si la ma liggéey bi poussé ma génn. MPSAID dem Thiès quoi benn dëkk ñaari gaal. ok ok ba bi écoutul quoi. léegi da nga dox sa carrière bi ku nekk mu ngi topp carrière solo quoi. ok lu leer bi pour le moment nii génne na quatre sound. ok quatre yoo xamante ne si benn bi featuring la quoi. Mhm, mhm. waaw ko def feat ak sama benn joo. Mhm. sama boy sama frère Julio Saint Esprit waaw. quatre sound laa dóor mhm. le premier mu ngi tudd positif négatif première sound bi mhm. mu ngi sama chaîne YouTube mhm. waaw Mb la quoi deuxième sound bi mu ngi nekk live ma ciy wax sama live quoi li ma jot a dund durant ma tàmbalee rab ak yooyu léegi ci ñaar yooyu mën nga ñoo expliquer positif négatif bi pourquoi sa premier sound nga tuddee ko positif négatif waaw parce que positif négatif yi boo gisee li ko indi mooy que ni maanaam live yi à chaque fois da ngay xam nga te da ngay si biir dund gi ngay dund noonu boo jëlee lu positif. ñu ngi siyaar baax alhamdulilah sañ la baax. boo jëlee lu positif def ko yoon sa lépp day positif. nga jël lu négatif def ko yoon tamit sa lépp day négatif sans dépense yow décision bi ngay jël sa bopp. moo tax ma ni foofu noonu positif négatif alul never shit quoi am positif négatif lu mu ci doon tiituñu si lenn dañ koy dundee noonu. négatif nag. waaw ah, bu dee négatif bi tamit. Ah, ah. waaw <laughs> shit man. nice nice <laughs> mi nice léegi sa deuxième son bi yaa ngi wax ci live. Mhm. loo xam te da nga dund la wala bon da nga am envie wax si live bi kenn ku nekk ni ngee dundee wala la la ko pourquoi live boobu. waaw waaw parce que san boobu tamit mën naa ne période bi ma koy bind <clears throat> dafa ma fekkoon ci période bu xaw a difficile quoi moo amoon ay quelques difficultés à vivre avec ma famille xam nga. Oh, te yooyu noonu yëpp erreur jeunesse la rek. Mhm. xam nga parfois tamit di toll foo xamante ne si. Mhm. dangay dund ak ñi nga nekkal loo xamante ne si yow da ngay jàpp ni dañ la bëggul ou bien la bañ xam nga mais juste lu baax rek lañ lay bëggal quoi. waaw moo tax sama boobu noonu tamit ma wax ci loolu quoi live waaw li la gën a métti sa live xam nga. nga baal ma quoi parce que am na loo xamante ni vie privée nit ki la mhm. du ñàkk tamit nga tegal nit ñi quoi yow yaay kan. waaw ah, réellement bëriwul jékki-jékki rek rab après say parents bala nga rab noonu naaj sànni ah, mm-hmm. tegal la ay affaire quoi. si life bi quoi la parce que da nga commencé rab après say parents commencé indi ay affaire de benn ñenke wala. si si surtout loolu waaw. waaw parce que man sama hip hop moom mën naa ni bi moo koy def boobu maa ngi jàng ah, maa ngi si biir school bi di jàng waaw. paa bi nag neexu ko woon quoi. xam nga yàgg na ma ko teree depuis mm-hmm. très longtemps. ñu dem ba loolu sax bokk na si li nga xamante ne si moo yokk indi ay différencier si man ak moom. Mm-hmm. ak arrêté bi ma arrêté school bi xam nga fekk instant noonu. Mm-hmm. ñu ngi dëgër si live ñu ngi xàmmee ñu ngi xam lu bari. xam nga da gis parents yi di dund yenn yi. xam nga tamit boo nekkee bañkat rek am na yoo xamante ne si doo bëgg di ko continuer li ko live quoi. Ah, xam nga da ngay jéem a focus. essence boobu jàpp nañ ne école bi ñoo may dara. xam nga waar bi rek. Mm-hmm. am teew mu teew. Mm-hmm. xam nga ñu bàyyi jàng. Mm-hmm. ñu bàyyi jàng dugg si métier bi. man maa ngi def profession pâtisserie quoi. defar ay gâteau genre yooyu noonu mooy sama profession. loolu laay liggéey léegi bi ma arrêté loolu nag. ci la plaignant yi démarré ak paa bi xam nga maire bi jàppal bàyyil ku ne. expliqué fii mais taxul tamit ñu bàyyi parce que tamit nit ki moom li nga xamante ni sa passion la da nga ko bëgg. Mhm. bëggal ko sa bopp. Mhm. day metti rek mais pour ñu jëlal la si du yomb quoi. Mhm. au contraire dañuy ñëw jàppale la si. ou ñu xool neneen lu ñuy def waaw. léegi nag loolu bokk na ci li nga xamante si mooy un peu gênant ci histoire bi te am na yeneen yoo xam ne c'est pas parlable quoi. lu leer lu leer lu leer. dañuy bàyyi noonu mi ngi parce que mm-hmm. yombul tey ci artiste nga bëgg a rap rek après ses parents ne la allez vas-y bàyyi nga rap il faut nga am foo jaar ak ñoom mm-hmm. mais bon. tey nit ki moom bu affaire bu amee benn affaire boo xam ne bëgg na ko rek. bon na ciy dem ba jeex quoi toog a hmm. waxtaan si ay parents quoi. mais comme actuellement say parents jox na ne la doxalal moom. si bul tiit dara. si si <laughs> si ngi noonu léegi sa troisième sound ci lan lay wax. waaw troisième sound bi euh, troisième sound bi yaakaar naa moo nekk M16 ah. M16. waaw ça veut dire M16. M16 indi arme laa indi quoi. arme waaw man <laughs> Sando mën naa ne arme la quoi. arme bi arme ni nga indi arme pour téye arme. waaw nga indi arme pour dóor dóor gars yi. arme moo xam ne ku ko yor moom dafa pare pour crime <laughs> pour def ay mort. waaw. moo tax sama boobu ma tuddee ko noonu m mhm. xam nga wan gars yi tamit ni mhm. lépp looy jaay metti ba mhm. ñëw fii nii gars ñu dañoo dund ba dee ba dee. waaw loolu laa bëgg nga fàtt nga jox ñu ko ci sang bi am na est-ce que est-ce que mën nga ci décortiquer tuuti ci sangoon bi quoi. waaw eh, bon mooy loolu mën naa la may sax. Mhm. quelque bar. waaw may ma quelque bar rek ma xam ne lii arme la boo xam ne pare nga pour. dër ko loolu la demee nag. yeah mhm. tiens déjà vécu la mort garde mauvais sort booste fessé d'or it's no way c'est mort pour me baiser frappe fort on est de boss ah oui la vie est toujours en guerre certes le dessert frère pour combattre le fer faut te taire certes on est des mousquetaires on peut pas te laisser toujours sur la route du succès tu peux finir allumé les adversaires dans le cercueil tel que le dugg si l'état lay tàggee sama fépp nañ guerre looy dégué. par rapport ay et lañ sekkee MC sama daaw tëj beeg baguette. man xam nga loolu dafa leer loolu jarul sax décortiquer ko dégg moom. <laughs> dina comprendre bii arme la quoi bii moom arme mokku dëm la mooy moom mokku dëm yi gars yi naa yor. <laughs> waaw mi mais mi vraiment mi ngi naaj. léegi instant bi def nga gàtt sans instant bi amagoo benn clip. waaw waaw clip nag moom jusqu'à présent moom defaguñ ci dara. waaw amaguñ ko moom. mais vrai que nag mu si aussi si projet bi ñu bi ñu doon waaj a lancé avant avant daaw. leer mais malheureusement. Mhm. dafa amoon ay empêchement yoo xam ne moo moo demoon staff bi si biir mais instant bi moom alhamdulilah quoi peut être incha allah fii ak si biir année 2024 bii daal nañ nañ indi leneen daal. bu soobee yàlla mi ngi comme gars yi ñoo ko déggandoo am nañu lu mu ñu may tuuti si si carrière am léegi Emy ñun dañoo gis ni Kajaw sa fréquentation mbooloo bëriwul quoi bon d' ailleurs yaa ngi liggéeyee Thiès n'est-ce pas. ci léegi tey jii est que rab bi ngay rab rab nga bëgg def. est mhm. tey jii loolu du la xaw a pénaliser pour tey waa Mboro man laa reconnaître bu baax ci game bi parce que tey jii peut être ku gis. Ah, pour mu gis ku la gis xàmme la ci game bi yombul quoi te lañ lay gis la am ci concert yi ba quoi loolu a indi ay si si benn instant parce que tamit ay nit moom ñi gis nañu xam quoi mais vrai que ñun MPCAD moom même bu dul avant hip hop sax dañoo yàgg représenté MPCAD waaw yàgg nañoo dund lu nekk biir MPCAD bi lu ne def nañ ko fii surtout ma xam nga diwaan bii nii ñu nekk nii nga xam ni si moom mooy loolu boo fi diggee souvenirs yu garaaw xam nga lay dal waaw mooy loolu noonu daal léegi nag. Mhm. à de quoi sax nga wax. ma ne que ni yow ji mhm. job bi ngay job Thiès. si tey gisoon ni du la am benn affaire boo xam te ne dina la ko xaw a waxañ. ka ka tey ji waa Mbora man naa mën laa mën laa reconnaître bu baax ci ci game bi. si si job bi nag. ak mhm. bu dee cadre boobu noonu moom. maanaam li ma fi xañ bari na quoi. bari xañ na si maanaam. ci wàllum reconnaissance bi ni la mhm. gars yi war a xamee. Ah, wàllum people bi na fi sax xam nga. Mhm. te loolu noonu lay joué carrément boo xoolee man Mboro dama fi raar damay toog ay trois ans yoo xam ne du fi jaar. Mhm. mais lépp rek mooy loolu quoi nekk ci ay affaire ak affaire de responsabilité moo ñu tënk si àll bi. xam nga d'accord mais yow gisoon ne que Thiès tamit bi nga nekk mën nga fa teelal rapport. si si Thiès instant bi yow lan nga fay def à part bi ñëpp xam ne yaa ngi jopp mais est ce que parfois tamit du jar nga génne sound dem ci yenn dem ci yenn concert yi xam nga pour tey waa Thiès man laa jox drapeau imbi nga xam ne kii kat imbi la jógee si mi ngi def fi lu nice si bien sûr loolu ñu ngi woon si yooyu te dèjà man durant ma nekk Thiès yëpp def naa fay sound yu bari dem naa fay concert yu bëri ba dèjà participé woon naa si benn compétition bi am Sams Prestige chaque année muy vacances amis dèjà dem naa ci ba quart de ci leen ma éliminé te éliminé boobu noonu mooy comme li nga wax léegi rek maanaam ñàkk piipol bi quoi ñàkk people bi ak ñàkk reconnaissance bi nga xamante ne si man MPCA mu dem moom laay représenté ah, xam boo demee biir Mbowar boo demee biir ngay représenté xam nga doo doo gis waa foofu Thiès mi lay ñëw taxawal de waaw Mbowar ngay gis te man bien vrai que man Thiès laa juddoo fa amee sept ans mais man Mbowar fii mooy sama site quoi parce que fii laa defee lépp suma life waa noonu la demee nag loolu nag ñu ngi si quoi ñu ngi si moom. waaw ah, kon nice léegi. te instant bi moom dañoo ñëw Mbissaat maanaam toog pour liggéey. ok kon instant bi yow da nga ñëw Mbissaat toog pour liggéey. pour liggéey waaw. kadda mooy ñëwaat na. voilà kadda yoo na quoi. waaw ka <laughs> demoon et de ah, léegi ci loolu noonu tey jii. Mhm. tey lan lan la mën a xam que ni kat Kidda mooy ñëw na ñëw na. Mhm. te indaale na looloo xamante ni macha allah parce que yaakaar naa boo gàddaayee ba ba war a ñëwaat. Mhm. da nga indaale loo xamante ni Fall yaaram. waaw ah. kooku dina xam ne kii gàddaay bi gàddaayul si hasard de. li mu indaale tapé du ko sóoru de Fall. Mm. Mm. lu bëree bëree bëree bëree. ok indaale ñi nga xamante ne si dañoo jàpp ne ñoom ñu ngi si au sommet quoi ñu ngi si taatu game <laughs> xanaa comprendre ñoom maam Serigne Diop yëpp ñoom laa koy indaaleel. ok xam nga te aussi tamit. Hmm? am na lenn lu ñuy préparer pour les jeunes talents de MPSA les new school quoi. ok ok boo yi nga xam loolu après après après nañ ci wax waaw nañ wax waaw man kay laa bëgg xam kat dégg naa que ni dégg sànq say wax nga ni am na ñoo xam ne jàpp nañu ñu ngi ci kaw. frère man gis naa rap pas actuellement ni mu mel ni parce que yéen seen génération bëri na ay boo yu fi nekk yoo xam ne dañoo rap macha allah ngi dégg tey comme tey ku mel ni euh, comment dire dirais am nañ fi fii benn booy ay ñoom il moxa mhm. ñoom kolajo xam nga ñoom duuki la et cetera et cetera yaa ngi fi de tey est ce yow tey pare nga tey ji pour ñoom tey ji ka mbooloo ni mhm. yow nga ak lu metti ba dañuy yow nga ci kaw ah <laughs> barke borom daaru. <laughs> ci ban anam yi nga koy defee. ah ci anam lu dul lekk xanaa liggéey quoi. Hmm. waaw parce que ñun moom dèjà dañu mën a boor bépp. ok bu dee liggéey psychologique dañ ko taamal suñu bopp. leer leer bu dee liggéey looy def si sa jëmm ko taamal suñu bopp. leer leer leer bu dee liggéey loo xam ne dox sax dañ ko taamee suñu bopp. Hmm, waaw nice kon nice loolu duñ jaaxal quoi. ok daa xam nga. ok gars yi nekk fii nii di hmm. mbelele li <laughs> yóbbu seen bopp loolu bàyyi naan xaybu <laughs> yóbbu seen boobu xaybu nañ ah, ah. xaar ba yóbbu leen xaybu <laughs> bàyyi. mais fii am na ay boo yoo xam ne ñu ngi def lu nice. macha allah ngi koy def lu baax. mais maanaam duñ ñu ko bëgg a imposer quoi mooy plaignant bi. xam nga lépp loo gis dafa am base. Mhm. waaw te te si moom boo nee si mhm. nga moom. Mhm. dañ ciy namm nga mëne boor yëpp ko ok lu leer lu mënewul boor yëpp sax. lépp solo nga mën ko. mais yow xam nga ni rap rap imbécile waaye. xam naa rap waaw man man naa xam mais kii seetaan est-ce que di xam yow na nga wax kii seetaan kii seetaan moom. <laughs> Ah. kii seetaan moom. Ah. maanaam du ma ko nëbb dara ci li may wax. waaw léegi rap imbécile maanaam lan maanaam lan ko loo bëgg a wax foofu. non maanaam rap su ma nee rap imbécile maanaam dafa bëri ñu laar bari ñu mën a rap bëri ñu xamul dara. léegi est-ce que mën nga maa est-ce que est-ce mën nga maa génnee quelques catégories yoo xam ne ñii peut-être seen rap àgg na yéen niveau mais booy yi nañ baax bu dee cadre boobu moom du ma lim benn. waaw léegi man mën naa laa lim benn yow tax limee yow mën nga tooñ. Mhm. léegi man Kanta man su ma la limalee ni ah li muy def tax film ko. Mhm. léegi waaw wala. ma lay suivre sa sang. ket amu ci kenn koo xam ne ku dul kenn mhm. sama frère la. sound bu mu teg dama koy bu mu génne dama koy déglu. mais le reste. ku ci a sound boo ma joxee sa lee xaw ma loo may partage yaa fa am daal bu ñëwee daal lu ma ci mën dinaa ko def. léegi si ci ci Azodip boobu nga afil man Azodip bon maa ngi dégg ay jobam. mais tey maanaam dama naan moom jobam dafa amul pub quoi. si moom xaw ma nu mu fa demee. Mhm. mais gars yi ko entouré moom mhm. bon. xaw ma nag peut-être am na lu tax ñu tënk jobam. si mais jot na pour waa Mbisar man ko xàmmee bu baax. non dañ koy xàmmee incha allah. léegi yow. Mhm. tey jii ay ñoom dina mbedd ay ñoom Gucci ay ñoom Makaville comme tey gars yi ne ñoom ñoo nekk ci kaw quoi. Mhm. yaa ngi dégg ay ñoom Ayo et cetera et cetera yaa ngi dégg tey boo yooyu seen job est-ce que film nga ko. non maanaam boo nee Gucci ni Ayo ni lan sax mbedd ni kanaat Makaville Makaville kàddu yooyu rek laa dimagul. ñooñu nga lim quoi nga ni ñoom ñoo ne ñoom ñoo ne si kaw. non ñooñu tey seen job fi ko mais tamit par instant bi ñooñ lan doon dégg quoi. waaw ñooñu moom bu dee cadre ba ren yi nga lim waaw ci lañ bokk. yow film li ñuy def yow bëgg bëgg nga ko. non moom mënu ko bëgg parce que dégluwuma ko. <laughs> kon gars déglu ma ci kenn. barki borom daaru déglu kenn sa sound. yow ba nga dalee nekk rek ba mosoo toog déglu sound ayoo wala jinne wala maka seen sound nii. xanaa ñëw fekk ni teg ko mais te bu ko tegee sax du ma ci bàyyi xel. mais du oh toog di loolu amul ma benn sens parce que xam moo tax. Mm, waaw xaw ma waaw dañoo yóbbu seen bopp xayboo. ok xaar ba ñu yóbbu leen xayboo. <laughs> kon man daal su ma déggee ba déggee yow dafa mboor yi fi nekk yëpp ku dul azo dib yow fi li muy def. waaw am nga problème de gaañ ñi nga song ñëpp. <laughs> non booy ñooñu motu ñu ma xëy. ah kon ñoo yarandoo quand même ñoo bokk MSA it. xam nañ ci boor yëpp. am na si ñoo xam ne sax bi ñuy débuté ah mooy loolu. non amul danger ñoom xam nañ seen bopp. ayoo bokkoo leen même ayoo ayoo non non ñu rab. non non ayoo après la quoi. waaw ah, ayoo maa ko njëkk maa ci game maa ko njëkk ci game waaw. ayoo ayoo wax dëgg fa ne yàlla mosuma déglu sama rab billaay wallaay parce que Cheikh Ibrahima Niass ñi seen sama moo si déglu daa fekk ma ñëw concert. ah booy na de. wala ma toog ak ñoom ñu. mais yow lu ay ay booy yoo ñu ngi Mboré def lu nice te doo leen déglu. non maanaam nga booy def lu nice. Mhm. maanaam yow sa jëm boobu da nga war a nice d'abord. xam nga li ma la wax. physiquement quoi. waaw physiquement mais si doxalin quoi. si parce que doomu aadama yàlla da ci namu da ci taamu bokk ku teey teey teey waaw teey dafa baax si nit wàcce sa bopp si tamit xam nga mais gars yi ngi fi lim nii yëpp dañoo wàccewul seen bopp quoi dañoo simplul te samay frère lañ samay gars lañ mais amuma lu may nëbboog ñoom de waaw li may teg ak yow nii damay toog du la di teg ak moom loolu di ko wax raay li fi ne sa nit ak loo mënti doon mënoo rëy rëy lu weew ba bay dox ci kaw air bi xam nga ma la wax mais da ngay wàcc sa bopp ñëpp bëgg la yàlla yéegal la bàyyi. lu leer mais bon man nag bon li nga wax peut-être yow yaa ko gis parce que kenn ku nekk ak sa mhm. gis-gis quoi. Mhm. voilà man du ma la balaa mel lool quoi. Mhm. parce que kenn ku nekk li ngay gis si nit ñi quoi. mais man d'ailleurs booy bon man gisuma benn affaire boo xam ne peut-être voilà mais rap ko nag parfois nga teg sa bopp foo xam ne àggoo fa. waaw loolu tamit si concurrence la bokk. waaw waaw parce que ku yóbbuwoon Thiès ñu teg fa benn hôtel da nga forcément maa ko jël. waaw ah, bu la boolee tey ji dàqarab Thiès par exemple tal bi. tey pare pour xeex a moom. Eh. am déet. waaw ah, loolu peut-être lan nga gis si ñoom rek. mais non non li ma lay xam nga bu baax rek si a teg mais xam nga lépp. baadu xam nga lépp waaw kon baax na kon ñoo ko déggandoo yéen adhés yi saa waaye dina leen du si déglu kenn bon lu tax nag moo def loolu man xaw ma quoi. voilà peut-être après yéen ngeen waxtaan seen mbir bu leen naan dimaam mooy jaxas <laughs> léegi léegi imbi ñu gis ñu fan yi gis nañ nga def benn nga nekk ci benn programme moo xam te ne benn concours la quoi parce que tey jii yaakaar nañ tey imbi jazz bu gàddaay bu ñu waatee bon day teg concert wala day indi album wala day indi leneen mais mu jaat dafa gàddaay indi ak benn ak benn benn concours boo xam te da koo bëgg a teg pour Mboro pour jeune artistes yi nekk fii Mboro quoi lan la quoi lu waral loolu noonu waaw Mana mulai li ma la wax rek xam nga ni kàddu yi nga lim da nga ni ñoom ñoom lañ gën a tudd quoi. mais man damaa dem sax ëpp na kàddu nga naan ba dimaane rek kàddu yi gars ëpp na kàddu yi. damaa dem ñëw xam nga la wax gis nga innovation quoi ci fi xam nga tamit na ci li nga si lu mooy gën a naqarul quoi si booy maanaam nga nekk artiste bu siiw ak bu bu mag ak bu ndaw artiste nga artiste la. nangul ko ko moo la mën moo mënu mool a la dàqarab dàqul nangul ko ko rek da ngeen booloo quoi ci saayit boo dem da ngay fekk xoolal artistes yeeg muy bongomaan yeeg mbalaxmaan yeeg rappeurs yi ñëppay booloo xam nga mais saayit bi dafa bëri ay xaajaloo quoi gisuma gisuma gisuma benn benn benn artiste boo xamante ne si mu ngi ñoddi moom grandeur am jëmale ko si évolution rab bi muy def biir MB Saïd pour ñu la reconnaître boo xoolee wax ji li bari rab mbooro game bi nanga mën naam li muy bari bari bari rapport bi gën a siw fii ñi xamul ni day rab ñoo ëpp fuuf mbooro fii loo xam la moo ko waral maam différencier bi ñuy ñoddante suñu biir game à par la mais live lu rafet à part la waaw bu ne game nag dangay ngay game quoi mën nga def lu ne mais après le game mooy loolu quoi dañ seq dundu réalité bi dundu live mu nice xam nga noo mën a jàppalee sa morom nga jàppalee ko te xam ne yéen a bokk même passion. looloo waral bi ma teewee fii li nga xamante ne si dama ko waroon jël sama team waa Life Goes ñoom dañu pare woon pour loolu ñu def ko benn projet. waaw mooy sama team ñoom dañu pare woon pour def loo xamante ne si maam si man lay jëm ko comme projet. xam nga ñu continuer projet bi ou bien. ou bien ñu jéem a def benn show. xam nga mais ma leen non non loolu duñ ko def avant tout lu ñu njëkk man li ma gis fii nii. lu koy changé leen dong la. dañ jéem a xëcc booy ñu defal leen maanaam ay mbapat quoi pour jëmal hip hop bi. te mbapatu rab moom. waaw mooy saay fa yeeg. xam nga compétition yeeg batali. loolu mooy mbapatu hip hop. te maanaam mbooro rappeurs yi fi xamuñu mbapat. te nit moom mënoo juddu tey màgg tey dee tey. rappeurs yi loolu la ñuy dundee seen carrière ñoom rappeurs yi MPCA yi. juddu tey bëgg a defar lépp tey mu mën tey c'est impossible. te lépp looy def si àdduna. Mhm. dafa am yoon pour nga àgg fa nga jëm. Mhm. moo tax ma indi compétition bi. Mhm. proposé ko booy. xam nga defal leen loo xamante ne si ñoom nañ ci mën a gis seen bopp nañ leen ci mën a reconnaître. lu leer léegi nga baax ma ci benn affaire quoi est que tey jii bon li nga wax yëpp xam naa mën ma cee jajaar quoi <laughs> léegi nga baax ma ci benn en tant que artiste. nga bëgg a organiser benn concours boo xam te yow da nga ak ak ak ak artiste nekk biir Mbor hmm. peut-être tey loolu ñun ñoo ko waroon def. yaa ngi dégg. Hmm. léegi yow ñun nga ne ah booy defuñu ko. Hmm. léegi man bàyyi mu jëm bàyyi mu ñëw di def ko est-ce que tey jii jàpp nga tey artiste yëpp tey jii yi nga bëgg ñu ñëw est-ce que tey ñoom ji dañ waaw loolu tamit dëgg la quoi nga différencier ba tey foofu noonu boo xoolee différencier mu ngi fay am. dëgg la rappeur laa quoi du ma promoteur. promoteur moo war a organiser n'est-ce pas. si si Ah léegi. comme que nag amuñu ay promoteurs yu ñu organisé. non am nañu ay promoteurs bàyyi sa caaxaan yi xam nga wala bu ñu amee ay promoteurs yu ñu organisé tamit promoteurs yi maanaam ñoom ñoo war a nekk ñi nga xamante ne ñooy premier jug pour boole artistes yi te booy boo leen bëggee boole il faut ñu mënante d' xam nga ku ne wàcce sa bopp muy booy be muy mag bi ah waaw. comme que loolu amul nag moo tax man bi ma ñëwee organisation bi man dama ci fës nii rek mais lépp sama gars yi ñooy gérer ñooy def lépp. Hmm, kon man comme artiste invité laa comme ñëpp. Ah, comme artiste invité nga quoi. waaw kon gars si maanaam du si dara quoi. waaw moom participer wul si compétition bi waaw Mbidiaz ti moom ñooy organiser compétition bi xam nga waaw. ok encore nga baal ma tey jii tey jii boo nee yi ba defuñu fi dara. Hmm. moom bon damay kaasa promoteur yi quoi. <laughs> parce que tey jii frère. Hmm. yombul nga dajale artistes nekk Mboro yëpp nga bëgg leen defal benn concours yoo xam ne ñoom seen biir la. parce que xam moo tax yombul. xam nga moo hmm. tey jii par exemple tey su ma la par exemple ne la yow dama lay woon ne la. MP dafa dafa ak benn concours ak par exemple du kii la peut-être yow man ak moom. yaa ngi dégg parce que xeeb naa ko. yaa ngi comprendre mm-hmm. tey jii gis nga tey jii boo gis nga concours bi nga organisé boo woon tey par exemple Jinne Maka Gucci mm-hmm. Tay ñoom ñëpp lenn ma ba du duñu ñëw. xamal la siy tegal sax. waaw lay wax. Mhm. amatul lu ñuy prouver Mboro. absolument tey loola moo tax tey promoteur bu mën a jug pour def fii benn affaire comme genre yooyu yombul. parce que booy yi mhm. li nga wax sànq foofu la amee. Mhm. ñoom am na foo xam ne tey teg nañu fa seen bopp te concours pourtant def ay bàtt seen biir loolu affaire de rap la affaire de game la. waaw voilà mais tey ji promoteurs yi essayé nañ def loolu mais booy ñoo parewul tey est ce que tey yow na loolu yow est ce que tey du dal ak effectif bi nga bëgg tay boy ñëw est ce que tey yaakaar nga booy ñëpp tey dinañ waaw euh, pour le moment nag boo boo bëggee comprendre. maanaam mhm. liy daw Ambisaid nii carrément ci biir game mhm. gis nga maam ñun sax laay wax ñun. parce boo xoolee Azot Dip Lil Mouxa Général Am. MD kilo bu Daaru. Euh, Mënz la Baron bu Daaru Xudóos ak Kagul MB ak benn boy bu ñuy wax Elba Kaana xaw ma boo yooyu noonu suñuy rakk lañ. même ñoom bu ñu dàqee rab man buñ ma dàqee rab sax suñuy rakk lañ bu mu jiitoo si rab tamit ñuy rakk lañ xam nga boo yooyu noonu dañoo déggoo new génération gis noonu. Mhm. ako ñoo booloo. macha allah parce que borom daaru. moo affaire yi man bi may jug sax ñooñu taxuñu ma woon jug ñooñu taxuñu ma woon jug mhm. pour góor yàlla yi ponkalu magum jëm yi ñooñu ma taxoon jug. ñu wane ko ku nekk li ngay jaay sa morom nga ñëw wane ko. Ah, leer man xam nga. Mhm. parce que tamit affaire yi game la rek. boo jugee fii tamit dem demal ba tribunal de la boo fa demee fekk ñu rabi rab rek nga mën a def mënoo def leneen ak succès boo munti am tamit rawatina nag boo xam ne génn goo sa saa yi. voilà léegi tey ji <clears throat> bi nu mu demee parce que yow artiste bi yaa ñëw proposé sama am ko Fall Yaram mm-hmm. dama am benn concours. Mm-hmm. ñëw nga bokk si wala dafa am dafa am dafa am nu ñuy nu ñuy inscrire pour ñëw dugg ci ci affaire bi. waaw affaire yi dañoo def track quoi dañ defee track def si info line yi partagé ko booy daal di ciblé ay quelques artistes contacter leen parce que am na yoo xamante ne boo ko bëggee organiser il nga def ay démarches daal leen di contacter woo leen teg ak ñoom xam nga booy tamit nekk ay booy yu gëm li ñuy def bëgg li ñuy def ragaluñ ci dara xam nga ñoom ñëpp. Azou di place njëkk a waxtaanal bi moo ko waxtaanee moom dani moo man pare naa ma gis M M M M M lan sax. MD1 MD1. MD woon Ahmed Dramé bi dëkk jàmm gën ma gis ko tegal ko moom tamit mënu ma pare naa ma woo Lille Mouxa Lille Mouxa sax du moins moom moo ma woo parce que sama benn copain xam ne manager am la quoi moom moo ko jox sama contact mu kóol ma ci leen ma dama dama jot info yi quoi ñu ne da nga bëgg organiser benn compétition dama ci pare pour bokk. gis nga sawar googu booy ànd ak si ànd ci ak sawar moom moo gën a poussé sax ma dem ba fond yi booy sawar ci. ma contacté la ñoom ñëpp kenn ku si nekk bëri woon nañ am pa gaay après affaire chaque instant artiste yu di ma woo pour bëgg a participer mais du n'importe amu mbooro moom bëri na ay booy bu mbaay rap quoi waaw ah. mais du ñëpp quoi dafa am benn niveau bu doon wër te niveau boobu am nañ ko déjà waaw ah. baam ci niveau boobu parce que am na ay rapport yu nekk daaru ñoom ba léegi yow affaire bi wala waa daaru kenn bokk ci waaw waa si am na ñaari trois éléments lañ sax mais kenn ki par la suite dafa bàyyi beneen waa reptile gang je crois kenn ki moo ñëw quoi keneen ki moom je crois participer wul waaw. kii nag am na kii comment di dirais waaw man damay bëgg def wala ñaari boo yooyu waaw man est-ce que nit la ñaari booy yi. booy ru waaw booy ru daara lañ. non man nag artiste daar yi moom MD kii la laa xam mooy participer si compétition bi ak Mënz la baron. Mhm. waaw ak PM la Gotch moom tamit waroon na participer mais par la suite dañuy du mën a participer. ñaari booy yi ñaari booy yi. daanaka ñaari booy ma dal maa ngi bëgg parce que am na kenn koo xam ne yëgul bi. ci dama laaj affaire pour inscrire nu mu demee man ko man affaire peut être gars yi ca traay gi la ñuy inscrire. la ñuy inscrire quoi. waaw après nag inscription yi gars yi dañoo képp ku jël info ni si contact si si affiche bi rek. Mhm. boo ñu contacter. Mhm. dañ leen jox jour quoi benn samedi la woon fii. ok le 6. lañ dajale safur la le le 11 dajale artiste fii. indaal leen ay contrat d' engagement waaw ku mën a indaal sa manager nga ànd ak moom après boo dikkee nga lire contrat yi bu la arrangé signé bu la arrangé après nga xool mais malheureusement gars yi jotoon ñëw yëpp ñoom engagé wu nañ signé nañ joxe seen inscription 3000 francs la woon te xam nga loolu noonu dara pour jàppale la rek wala direct final. Mhm. nu muy demee quoi. waaw xam nga duñ ko bëggoon defee trois jours lañ ko bëggoon def mais par la suite après affaire yi xam nga décembre bi dafa xaw a saturé benn instant tamit moo tax léegi ñu décidé benn fan bi. jël parce que mhm. instant bii nii mooy loolu heure bi du heure célibataire fii. <laughs> naa mi ngi bëgg lan dem quoi. gars yi dañoo sonn célibataire <laughs> mi ngi noonu <laughs> heure bii moom dañuy fekk ñu dugg si ñu mbaaj. bilaay walaay. teel a bokkatu léegi. Mhm. maanaam inscription yi. Mhm. comment dire sax compétition bi léegi. Mhm. ci benn jour lañ koy def. Mhm. maanaam artiste bu diggee tag maanaam final kii lay doon waaye quart de lay doon safurla demi finale ak finale kese lay doon. artiste bu ñëw. da ngay ñëw improviser 30 secondes. freestyle 16 mesures sur beat xam nga léegi am na benn sound boo xam ne thème la quoi dañ ko jox artiste sama side thème bi mooy sama side quoi Mboro moom lañ jox artiste yi boobu ngay dóor. fekk am na yeneen ñaari instrumental yoo xam tamit benn bi texte égotrip lañ lañ la si defal texte égotrip boo xam ne day am rythme la si joxaale nga rima ko si ak beneen sound boo xam ne yow yaa xool su soit nga def ko bu la neex sax nga sa sound xam nga boobu ñaari sound ñaari kii yooyu pour final bi la quoi mais bu dee premier tour moo artiste bu nekk day improviser 30 secondes freestyle 16 mesures dor dor dor dor sound bi quoi tembe, artiste bu nekk noonu lay def après ñu jugé. parce que maa la koy wax léegi mi ngi mi ngi euh, guddi quoi. léegi tey jii ku gagné lan lay am. waaw ku gagné moom dina la tegal ci table bi trophée hmm. tegale si table bi tamit EP quoi projet xam nga tegale si table bi EP projet ñu ngi bëggoon def tamit sound boo xamante ne si pour ñu participer si compétition bi yëpp hmm. dañuy bokk si sound bi xam nga après ñu def collaboration avec Vital TV hmm. xam nga télé bi nga xamante ne si moom macha allah. <laughs> mën naa ne moom mu ngi jëmmal hip hop mboor bu baax a baax a baax mu ngi teg loxo artistes yi macha allah. yal na yàlla xeb doole daal bokk ñëpp. voilà léegi tey ji bëgg na xam tey ji xam nga rek bëggu gars yi bëgg ñu dem ba si biir après du lu yu fenn. si yaa ngi comprendre est ce que est ce que tey est-ce que pare nga carrément pour dem ba mu jeex tamit. parce a si si day bëri ay artistes yoo du mujj fenn. waaw si lii moom franchement pour le moment nii. Mhm. maanaam yàlla dañu dimbalee benn affaire loo xam ne jeunes xamuñu ko. ñun dañoo am ay grands yoo xamante ay autorités yoo xam ne yu bëgg a jàppale mhm. ku ci mel ni grand Paul mhm. ak ku ci mel ni grand Ndiaga Ndiaye. ñoom lañ parrainé événement bi sax. ñoom da ñëw tegal leen sa projet ak lu mu ti demee dañ la si jox xam-xam boo xam ne yow après boo fa jógee boo naroon def benn dangay def dix. xam nga waaw grand yooyu daal teg nañu loxo carrément ba amatuñ dara luñ ci xalaat daal jàpp nañu lépp. bu ñu ci àggee si jour yi daal incha allah ba final ba artiste bu si nekk liñ la promettre di nga si jot. Ah, kon nice kon nice kon nice léegi affaire bi fan la. waaw affaire bi nag. Mhm. fii lay amee incha allah. ok ci terrain basket bi quoi ci terrain basket bi lay amee incha allah rabi fi lañ koy defee à de 16h. incha allah ñëw rek wala ñëw pay. waaw waaw pour le moment nag. Mhm. clôturer nañ quoi. Mhm. artistes yi doon engagé wu engagé ba mhm. pare. xam nga. non ci côté public quoi. waaw waaw plein la. kon gars waaw ba pare aussi tamit on a une collaboration avec le gouvernement scolaire bu lycée bi. boo xam dañ fiy door asiko xam nga. asiko bi waaw. ok ça sera du lourd daal. ah nice nice waaw mooy loolu noonu. nice ci nga invité gars yi. waaw mooy loolu noonu comme ni ma ko waxee rek maa ngi ci woo waa MBC yëpp. Hmm. képp koo xamante ne si yow xam nga doomu Mboro nga. te développement mbooro yitteel na la ci wàllu culture rek ci wàllu lu mu mënti doon xam nga nga ñëw jàpp si bis bi sa bés la ko pour ay doomu Mboro la pour jëmmal hip hop bi la daal loolu moo ñu tax a jug waaw mooy loolu di ci invité ñëpp daal bàyyi ñu kenn waaw di leen bëggee. jaajëf Dima kon ñoo koy déggandoo yéen ñëpp leen invité xaaral di es na il faut nga am benn affaire boo xam ne nga wax artistes yi. Ah. toog taal pour déglu. Ah. parce que bon artistes Mbooro yi xaaj bi xamuñu concours. waaw yaa ngi dégg. Mhm. concours dafa am nu muy mel. daa am nu muy demee si. côté artiste bi. Mhm. habillement bi xam nga. foog tamit foog tamit nga boo wax ci nga bàyyi si sa artiste. surtout ma si mhm. condition yi nga xamante si condition bi noonu lay si nekk yaakaar nga ko si contrat ah, d' engagement yi. xam nga mhm. waaw di wax aussi tamit lii daal kaf la mhm. foo ree xam nga na nekk yeneen sa morom jàmm ñëw def fu laak fayda xam nga ñu foo. le vainqueur gagne. waaw mooy lool te ñu teel a ñëw heure à partir de 16h lañ leen convoqué ñoom ñëpp incha allah fi lay xewee. voilà gars yi ñoo ko di déggandoo quoi bon dafa nekk ben boy boo xam ne mi ngi fii mboor def benn affaire bu nice voilà organiser fi ben concours pour tey mën na bousculer tuuti rap imbécile gars yi yéen ñi mu invité pour ngeen ñëw bokk ci affaire bi ak yéen ñi inscrire pour ngeen bokk ci affaire bi gars yi jàpp leen si affaire bi gën nice quoi parce que affaire bi pour ñoom la quoi nekkul pour ñun quoi voilà kon gars yi nan nice xam nga teel a commencé mm. voilà heure bi tamit foog nga waxoo pour gars yi bañ a ñëw man man parce que man mi sax xawma heure waaw l'heure exactement ça sera à partir de 16 16h allah à partir de 16 lay xewee fii xam nga waaw ñu démarrer événement bi en collaboration avec waa lycée ñoom dañuy def benn asiko fii bu neex incha allah xam nga pour bégal waa Mboro daal waaw di ñaan yàlla ñëpp ñëw teew si incha allah mooy loolu. jox ma benn affaire boo xam ne dama koy yóbbaale. waa tamit surtout loolu. mooy loolu baa baa ngi koy laajee. Ah, loo ma jox ma jël. yow par force la kon foo ma bokk. toog ci seen i bopp mel ni boos si seen i doq pour nga bay fa nga am gopp. foog yi ak sa góor du lanti noor nga da ngay toq doo fees wéet ma seppi feegi comme weñ pour mën a teglu jantal rap la ma leen di jàngal samay lyric su kocc man du ma bàyyi sax buuju man xel xol bi lay faay négg ma leen bàyyi da ngeen tële jaay. da ngeen di gem pour sàkku xameel may rab li sax si bàmmeel da ngay juddu léegi gaare ñi la yéene bekke mooy ñuy toog sa buntu gaale live bi ni la demee li ngay yéene moo lay jàlle nay nice bëgg sama gars yi. léegi tey ku bëgg xam xam ah, kii ah, comment dire sa page YouTube Instagram lala lay def. ko pour gars yi mën a dem foofu. waaw compte yëpp page YouTube Instagram xam nga Twitter Snap lépp MB Jazz la ko waaw bu ñu tapé MB Jazz rek MB J. A 2Z. kese amul la demee nag. <laughs> sa dernier waaw waaw dernier mot bi moom bàyyi xam nga mooy loolu quoi maa ngi koy baaxee sama ji sama ménageur Chakour. Mm-hmm. Fallou Mbengue maa lay saluer de passage di la bégal lu bari xam nga ak Dams sama ji yooyu nga xam ne moom mooy loolu ay focusement lañ quoi. di wax nag merci beaucoup pour tout di remercier waa Vital tamit ci invitation bi encore une fois merci beaucoup. voilà gars yi ñoo ko déggandoo quoi Mbith Diaz la woon xam nga fii nii ci Vital TV ak ci émission Dias Hip Hop yi kàllaama bi am na solo. tamit dem leen ci paasam ngeen déglu booy bi booy bi rap rek lay def de <laughs> voilà tamit di leen invité tamit le 23 tamit xam nga ngeen ñëw jàppale ko xam nga comme ko doomi mboor la te daa daa bëgg a génnee rap mbooro tamit nañ ko ñëw jàppale bu baax a baax a baax a baax di leen jox dig tajee ak seen émission jazz hip hop ak nen ak King de Mavely bravo mais moom tuuti ma ñëw rapport bu mag bi kaay kaay kaay kii mooy yaakaaru Mbissaat sukkal nii ma wala sukkal nii jox ko ma rek. may ma dara. jibee care an ah. ndigo may kep segel dikat braki gon di fat paka put sara tela te sagat kil sobos na pat man si ja sirap damay lep safan pare wax saf ndigo yi pi so man sen mal buro de ngani garab yodu jubal ni pablu eh, rek tak jepet ndiga man sen ker xar da tegalu tar pa bat sa anakonda tarmle de dal ndiga do taf geewol mo yi gis ngeen mboora ay tana ñoo ñoo fa nekk yow yaay kan météo DMB, météo ah waaw DM yow inshallah na ñu fekk ci affaire nice ah waaw aja aja man nice bege wala gaay di leen jox di daje ala prochaine baaw